yaa ngi ci biir Songuanté TV bu leen fàtte di aimer abonné yu ba noppi di activer cloche de notification bi dara dootu la ump ci réew mi ak ci butim réew ak la télé du peuple Songuanté TV. Aquaterra ndox mi wóor te leer KPay transfert d'argent bi gën a wóor. salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum suñu mbokk internet yi seetaan Songuanté TV ñu ñëwaat ci troisième épisode Fun Ado ñu dalal koo xam ni nag euh, mën naa ne naanaan la ci réseaux sociaux yi ñu dalal xale bi nga xamante ne nii képp ku ko gis rek dina ne ah kii kat euh, bébé Binta la waa parce que tey bébé Binta mu TikTok mu Instagram moom la ñu invité ñu fas yéene nag wax waxtaan ak moom euh, li nga xamante ne nii moo di parcours am jeunesse am nan la. def ba agsi fii parce que comme nu ma leen ko doon waxee rek Fun Ado nekk na concept bi nga xamante ne ni xale yi doon référence ci réew mi ñooñu la ñuy jël pour ñu mën a servir exemple yeneen ndaw yi te léegi nag laata boobu dañuy bàyyi suñu invité mun nuyoo euh, bébé Binta nuyu naa la. ma lay fay Adja maa ngi nuyu ñëpp mm-hmm. di. lii yëpp daal voilà lii ñëpp. Mhm. tey ñu am mbégte dalal la si biir Songuanté TV lan ngay wax suñu mbokk internet yi lay seetaan ak sa fan si mooy leen di nuyu tamit di nuyuwaale euh, Songuanté TV bi mhm. voilà. voilà donc bébé Binta tey suñ doon laajte kan mooy bébé Binta parce que gis nañ bébé Binta mu nekk xale bu sopp nekk si eh, TikTok bi bébé Binta mën nga sañsee mhm. am nga feeling am nga flow ba tax na xale yi jigéen yi di la ñoo ëpp sax lu ñu lay suivre laay wax mais mhm. góor ñi tamit duñu duñ leen fàtte mhm. ñu gis ni Sénégal daal jox nañ la bopp bi nga xamante ni léegi nga àgg si un million abonné TikTok egg tamit si cinq cent mille abonné Instagram tey jii bu ñu doon laajte kuy bébé Binta lan nga ñuy wax Bubu euh, Binta nag euh, du kenn koo xam ne que jusque dafa nekk ci réseau yi pour mhm. foo ak kaf yooyu noonu. Mhm. voilà du loo xam ne que métier la. Mhm. Euh, jusque rek dañ ci nekk pour s'amuser yaa ma gën a xam. mais du dara voilà. <laughs> donc comme nu mu ko waxee dafa nekk ci réseaux sociaux yi pour divertir rek mais Bubu Binta yow foo jàngee ban école nga jaar ak ban ak ban ak ban. Euh, jànge naa groupe scolaire la familial. Mhm. foofu laa defee sama primaire ba secondaire. ok mais gis naa ne aussi fan yee passé jël nga benn diplôme boo xam ne ñëpp di ko coow nga def ay shooting yu doy waar. ban école la. Euh, école bi nag euh, école de formation la mhm. stylisme bi mhm. nekk Sacré Cœur Kayif la tudd. fa laa defee sama formation deux ans après. si laa amee sama diplôme. si nga amee sa diplôme. Mhm. qu'est-ce qui t'a pour euh, nga dem si côté stylisme bi. Mm, parce que dama xaw ni dama ko bëgg. Mhm. te en plus euh, yore naa comportement comme man dama bëgg ay affaire sañse affaire yooyu noonu léegi nag dama doon wax ni que. depuis mhm. dama depuis ba ma nekk xale dama doon wax ni que euh, lépp lu mu mënti def dinaa jàng stylisme pour xam. métier bi et tout pour def ko ak yooyu noonu mhm. d'accord léegi ñu gis ni ko aussi bi nga defee euh, sa sa sa formation stylisme euh, jox nañ la sa diplôme mhm. et que si nga njëkk a génnee sa premier collection duma ko fàtte mooy bi nga nekkee si wetu oto bi et que am na sa benn fans sax bu ñëw d'ailleurs fekk la ba sa kër kër eh, Massar jënd ko te yaakaar naa loolu tey ji fierté la pour yow te dama doon essayer juste rek di xool mhm. mais voilà après si laa nekk lii moom sava va. Euh, neex na la kii nekk na lu la neex. <laughs> léegi tey jii lan la ñu war a xaar si côté stylisme bi. dañu war a euh. xaar comme ni ñuy déggee ay caani jour ji jañ naa tey jii bu bébé Binta fan la fan la natt boppam ne war na fa àgg. incha allah mhm. maa ngi préparé ay collection yi day waar. Mhm. voilà ñu ngi ci. Mhm. xam nga rek affaire yi affaire yi moom par nànk nànk la rek. Euh, léegi nag ñu ngi si. collection yi incha allah léegi mu génn rek peut-être. balaa décembre bi balaa décembre bi xale yi tamit décembre bi dañu war a. sàcc masala laaleel la yow tamit. tamit ah. waa sponsorisé fon ado maa ngi sa ginnaaw <laughs> dëgg neex. <laughs> léegi nag mu ngi noonu bébé Binta gis ngeen uh, lu mu wax uh, si côté stylisme bi bébé Binta aussi gis nañ la fan yee passé ñu jox la benn trophée Miss TikTok comment ça se ba ñu sélectionné la woon si participants yi. que rek euh, sama fans yi mën naa nekk ak sama xarit yi ak sama mbokk yi ak ñi ma bëgg. Mhm. Euh, ñoo dem votel ma après si laa gagné trophée bi. Mhm. voilà ma am ci. mbégte mbégte kontaan aussi. macha allah sa fan aussi kontaan loolu. mais uh-huh. dafa am si remise de euh, de trophée bi. Uh-huh. li nga xamante ne nii ça sa a choqué tous les sénégalais muy le fait que. kin ne doon la jox trophée bi nga bañ catégoriquement ne doo ko doo ko doo ko jël sànni sa kanam géej nag gars yi il se posait la question mais qu'est-ce qui se passe entre ces deux là ba nga xamante ni nii kin ne mu ngi la doon mm-hmm. jox. Euh, Euh, trophée bi mhm. nangu ko woon jël te yaa gagné. voilà te maa gagné. Mhm. dëgg la parce que moment boobu normalement maa ngi waroon a reetaan. Mhm. war ma woon di fa sama kanam. mais juste que dama nekkul woon. moo tax rek. mais nit ñi comprendre ñu woon. léegi est-ce que lan ngeen jote woon ba nangu woo jël jël trophée bi. ak moom fàtte naa sax. li ñu jotee jote wu ñu de c'est juste que dama nekkul woon rek. da nga nekkul woon hmm, yaa ngi sàcc film bi de. <laughs> parce que après ça. après mhm. ça gars yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi clash. Mhm, ñu ngi ñu mhm. ngi faral. Binta Kiné ñiy faral Binta ne xamoo lu ñu lu ko def ba tax na mu réagir. noonu juste après ñu gis euh, falu fait des vidéos. woo woo ko juboole leen ba mu ngi tooñ sax naan man lañu man lañu xuloo maay seen far. te bëgguñu ma bokk moo tax ñu xuloo. léegi Fallou kan moo ko contacté wala dafa ñëw rek. Euh, dugg noonu pour bëgg rafetal diggante bi. Euh, Fallou nag dafa nekk ni koo xam ne que moom bëggul benn nit. bëggul kenn di mer. Mhm. bëggul kenn di am problème aussi mhm. moom bu gisee loo xam ne ne que c'est pas normal da lay woo woo keneen ki après def tout pour ngeen nekk ci jàmm. Mhm. voilà après mu def acte bu rafet. voilà woo ma woo ki ne après mu jiboole ñu yooyu noonu ñu nekkaat ci jàmm. yaa gën a xaw. après ngeen ngeen zonse daal. waaw xam nga tamit sénégalais yëpp euh, comprendre ñu xamuñu. lu ñu jotee et mhm, léegi mhm. nag loolu moo tax après. moo tax euh, genre bi ngeen jubóowee gars yu bëri rus nañ de. waaw loolu moom dëgg la parce dañoo dañoo dama def li may def tey. <laughs> deux jours après. ngeen juboo ma fay affaire gars yi naan lii lii moom critique la mënuñu si wax moo tax boo gisee jaari diggante nit uh-huh, nga war cee maanu si parce que doo xam fu ñuy juboowee mm-hmm. léegi ñu jógee si histoire Kiné bi mais gis mm-hmm. nañ la fan yi ngay ngay nekk def ay vidéo ak Fallou nga mm-hmm. nekk si jabaram et tout ça da nekk en collaboration wala léegi dangeen dangeen da ngeen sama xarit la sama lépp la sama frère la aussi daf ma maa bëgg mu bëgg ko. ñu mm. bëggante. moo tax mooy loolu daal man moom dañoo am relation bu kii daal. frère et sœur la. parce que gars yi ñu ngi ñu ngi naan euh, couple commencé naan couple tiktokeur yi jël la collé la ak Fallou ne Fallou mooy sa jëkkër. Ah, yaa gis loolu. yaa ah, gis loolu de. partagé ma ko ma xool ko. <laughs> nga xool est-ce que est-ce que relation bi tamit si si si kii rek la yam si frère et rek la yam. loo gis. ah man de lu ma gis moom ma ko waxee dëkk bi yëngu yow waxal rek sa avis. non ay frères et lañ yow tamit. kon ñu jàpp frères et sœurs jaay yow. wax <laughs> kon nañ jàpp frères et sœurs gis nga bébé Binta lu mu wax nee na fàllu frère am la mais bébé Binta dañ lay gis ngay nekk si ay clip. ñu gis la des fois nga nga solal benn benn benn marque. Mhm. comme marque papi bu bu ñoom Astar. Mhm. la moo nekk sa relation ak ñoom Astar ak Mati parce que dañ leen di gis souvent ngeen di sol ay collection mhm. di défilé ak ay chaconné ak ñooñu ñëpp. lan moo nekk seen seen seen relation yéen quatre ñooñu noonu. <laughs> bon Popi nag pour li tax ñu gën a xamante c'est à cause de Mati. Astar tamit c'est ma sama sœur la Mati tamit. sama petite sœur la moom tamit sama mhm. copine la en même temps sama sœur la sonal ma nag. Mhm. ba bëgg a dee. voilà moom présenté papi après papi tamit ñoom dañuy jaay ay yëre yu rafet. Mhm. voilà après ñun parfois ñun ñoo leen di solo comme ñun ñoo leen gën a jege. voilà ñun léegi ñoo leen di solo seen collection de <laughs> waaw gis nga. yëpp ñu ba bëgg a dee. waaw ok léegi mu nekk li nga xamante ne nii réseau gis nañu affinité bi ngeen am. mais nekkul affinité comme ñoom papi kese dañ lay gis aussi ak Aïcha benn problème similier bi ak benn influenceur oh, dafa mel ni que tu es quelqu'un de sociable et que tu maanaam da nekk nga nit ku oyof koo xamante nii amoo problème ak kenn à sa mm-hmm. kii boobu ñu la fi déggaloon rek <laughs> te loolu erreur <laughs> erreur la voilà uh-huh. donc ñu gis ni yow yaa ngi sympathiser ak ñu bëri mm-hmm. donc euh, soo gisee nit ñi nga xamante ne nii dañuy xeex seen biir si li nga xamante ni ñoom ñoo ko bokk muy réseaux sociaux yi ñooñu lan nga leen di wax. ok bon pour mbirum réseaux sociaux. Mhm. man damay conseiller nit ñi comme sama moroom yi laay wax. Mhm. ni que buñ ci xel buñ ci xuloo buñ ci xeex parce que mhm. loo xam ne ne foo la. loo xam ne ne que ku ñëw rek da bokk ku ñëw dangay bokk. boo nekk ku ñëw après day bokk nga ñëw nga siis ko. loolu amul benn importance. man nag pour man nag nañ nañ kii nii nañ nañ. sekk jàmm. Mhm. di kaf di fo di ree. Mhm. ah man loolu laa gis daal comme man ni may def. parce que gisoon nañ fi ay ay ay tiktokeur yi nga xamante dañ leen gis tey ñu ànd. ànd tey suba ñu tàkkali ko kenn du comprendre le pourquoi. ah xam naa ñoom peut dañuy jotante ci seen biir. Mhm. ay affaire soxorante seen biir. mais man daal je préfère ñu yaatal xol yi. ah ubbi xol yi. dugal ci seen moroom yi te xam ne ne que sociaux yi moom. buntu la rek bu ubbeeku ku ñëw rek da bokk ku ñëw rek da ngay kenn mënu ci dara. amul amul amul frontière quoi amul buntu aussi ku mu neex mën nga nekk influenceur. Eh, mais Bébé Binta ñu jógee si sa carrière sa say say influence. marché clip bi muy demee nag ci saa ñu toog la rek ne la Bébé Binta dañu bëgg nga bokk sama clip wala yow yaay de marché loolu. déedéet. Mm. ah man dañ may woo de. ah dañ may woo dañ may woo après sama manager la ñuy waxal. Mm-hmm. après coordonné ak moom après mm-hmm. suma kii. su ma bëggee rek après damay dem mais du n'importe clip nag laay bokk. Mm. dafay am clip yu may bokk am clip yu ma dul bokk nag. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord su weesoo loolu ñu ngi lay gis parce que bébé Binta yow ñëpp ni kii. Mm-hmm. nu mu tawee nii dafa sob ñëpp dañ naan dafa sob dafa bëri cëfër cëfër lu tax ñu ndaw ñi bëri bëri maam bëri dugg dugg daal dañ lay gis ngay def ay shooting shooting yi c'est quoi. di def shooting di sol robu waa di wane say forme di défouler wu si réseaux sociaux yi c'est le but en fait. ah dara. Hmm. damay envie photo wu noonu rek. Hmm. wane samay sañse. Mhm. wane sama jonge rek kese. kese. tout court tout court. <laughs> yaa a dañuy naan ah bébé Binta mii. Mhm. bu muy jëlee mais gars yi dañuy fàtte ni que ni yow tu oh. enfant pour y gâter donc sa yaay yi ñoo la bàyyi si li nga nekkee. waaw loolu moom dëgg la fii indik laa. Mm. fii à papa fii à maman. Mm. voilà donc ñoo lay financé pour ngay def shooting yeeg yooyu noonu. ah waaw waaw. wala daa kenn kii eh, waa ji nekk si ginnaaw kan kan moo nekk si ginnaaw. ah on sait jamais on sait jamais peut-être aussi am na waaj lay parce que dañuy gis influenceurs yi du ñu xam lu liggéey. dañuy xëy tëb nit ñi gis nga ni diw dem na Dubaï. waaye loolu moom dëgg la diw dem na fii diw fee ah diw lu muy liggéey afu mu jëlee xaalis parce que Sénégal moo sénégalais yi ñoo mel noonu ñoo baaxoo di wax di wax di wax. Mhm. kenn mënu leen tere wax. Mhm. donc yow genre euh, il faut aussi des fois ngeen leeralal ñu ñu xam ñi ñu ñuy def. ah man de pour man sama mhm. bopp xam naa ko. xaw ma ñeneen ñi nag. mais man moom kenn financé wu ma. man xam nga fi yaa papa fi yaa maman kon mën nañ ne sa parent yi ñoo lay. waaw mën naa nekk lépp que lépp samay parents la mm-hmm. voilà. ok comme gis ngeen euh, li bébé Binta wax nee na moom ay parents ñoo koy financé mais suñu gisee ñi nga xamante ni seen parents yi ñoo leen di financé dangay gis ñeneen ñi nga xamante ni nii euh, entre mais doo xam fu ñu jëlee seen xaalis mooy war a ñuy dugg si naka su dul noonu mm-hmm. comme affaire du porte-à-porte bi bébé Binta loolu loo si xam parce que jigéen mm-hmm. xaalis instant yi nii lu ko jaral si boppam moo ñoom jaral na leen lu nekk. Mhm. léegi en tant que influenceur est-ce que mosuñu la woo proposer le genre yooyu noonu. Euh, bon man nag euh, kenn mosuma woo di ma proposer genre yooyu noonu. Mhm. parce que ñoom yëbuñu ma. Mm. xam nañ ma bu baax de man dama am caractère. Mm, voilà mm. dama am caractère tuuti naa. Mhm. aw ma doole nag mais dama am caractère. loolu gis nañ ko chaque jour ñu gis na nga xeex. <laughs> voilà euh, kenn du ma ci ay affaire u ñàkk fayda mais man pour man. xaalis jaraluma may dem ay Dubaï di def ay affaires yooyu noonu. Mhm. man je préfère que liggéeyal sama bopp. Mhm. publicité yaa ngi fi. Mhm. lépp mu ngi fi. te publicité yi di ci am xaalis bu bëri. parce que da ngay xool benn semaine bu ñu la wooyee deux publicités ou bien trois publicités di ci am sa xaalis. loolu rek nga teewal ko sa bopp après loolu boo koy dajalee. di ko dajalee après ni nga mën a dem voyage aller retour ñëw jënd say bagage et nga ñëw. mais non dañ lay woo. allo. lii lii lii après nga def loolu noonu yaa ma gën a xaw Youssouf Salte yooyu. Mm. ah man moom du ma ko def man bébé bi daaw. ngay ñëw nan ngay lan ngay conseil jeune fii parce que bés jaral na leen lu nekk ah. waaw da ngay gis parce que du seen milieu influenceuse bi kese. Mhm. da ngay gis aussi si wàllum cinématographie bi. Mhm. jigéen ñi dañuy bëgg producteurs yi jël leen. ñu mhm. bëgg feeñtale ñu bëgg siiw kut ko kut. yow sa sa sa sa sa ndaa naataangoo yi laal mën a wax parce que yéen ñëpp da ngeen di feeñ euh, sur les réseaux sur mm-hmm. les images mm-hmm. ñooñu lan nga leen di conseiller ah bu leen réseaux sociaux yi jaral ngeen yàq seen bopp mm-hmm. te xam ne que siiw du dara siw loo xam ne nekk euh, rek yàlla moo la koy may loo xam ne nekk du dara daal loo xam ne waaw bu la ko bu la dara yi bum la jaral ngay jaay sa sago xawma noonu lañ koy waxee mhm. ci olof mhm. voilà yaay am personnalité sa bopp mhm. am na fulla sa bopp am personnalité sa bopp gëm sa bopp aussi loolu kese la <laughs> voilà léegi comme euh, nu ma ko doon waxee rek proposition yu ne da ko fi gis pourquoi les propositions canapé parce que suñ ko defoon benn jigéen mu refuser je pense que du jël ampleur ñu naan promotion canapé c'est parce que am na ñu ci jaar. Mhm. ñoo xam ne xale yi ñi ko ñi góor ñi koy proposé. Mhm. def nañ ko kenn def nañ ko ñaar def nañ ko ñett. Mhm. ba ñeenteel bi peut-être mooy échec pour ñu commencer di dégg promotion kanaape jigéen yooyu lan nga leen di wax parce que ah. loolu nekk na li nga xamante ni nii ah, dara ah, daray àdduna jaru ko daal. promotion canapé moom mooy loolu. ñoom daal ma su ma sañoon daal ñu gëm seen bopp. voilà di liggéeyal seen bopp amal lépp seen bopp man loolu laa leen di conseillé parce que góor ñi moom dañ lay def liñ lay def après bu ñu toogee dañ koy toog di ko fi waxaat voilà wala ñu jàll ci ne wala ñu ne booy bi moom kii naa ko ba pare mooy loolu te loolu daal voilà te loolu moom pour euh, sa réputation yow yaa koy defal uh-huh. yaa koy defar ba mu baax voilà way bu dul fay te nit ki boo xasee ba am tur moom mm. yaay defar sa tur ba mu baax nga xam ne ne après du ñu ne ëllëg kii de nii la fi nekkee woon ou bien kii nee la nee la fi nekkee woon mhm. da ngay def tout ba ni que chaque jour mhm. bi ñu tuddee sa tournée ñu ne ah kii de nit ku baax la woon mhm. nit ku lii la woon ci dëkk bi nit ku lii la parce que ñu day sóoraale ëllëg ak bis bu fi nekkatulee aha loolu la nag mooy loolu da ngay yu bëri parce que tey di fa nekk ginnaaw suba doo fi nekk loolu la nag léegi bébé bi taa su suñuy wax say projet lan moo nekk say projet tey ci biir Sénégal ñaa uh-huh. ngi xalaat parce que da ngay gis euh, seen mbokk influenceurs yi surtout mm-hmm. da ngay mm-hmm. nekk nit ku siiw rek fat fat benn maison de production woo la mm-hmm. euh, théâtre laa bëgg est-ce que mën nañ xaar waaw. Mm. xaar leen ko. Mm. incha allah yooyu yëpp dina ñëw mais man pour les l'instant. Mm. si sama liggéey bi laa gën a concentré wu. que ay série yooyu noonu. Mm-hmm. voilà si sama liggéey bi parce que yëpp maay préparé wu pour sama collection yi génn pour ma mën a liggéey. Mm-hmm. après na su ma liggéeyee ba gérer sama boutique ba après. Mm-hmm. après na série yi ku ma ci woo dinaa la dinaa ñëw incha allah. pour mhm. lan mooy euh, euh, avantage wu réseaux sociaux lan mooy euh, inconvénient wu réseaux sociaux ok léegi réseaux sociaux na dina la apporter lu bëri mhm. parce que di nga am ay connaissances yu bëri mhm. di nga xam àddina tamit da lay jàngal àddina bu baax parce que di nga xam ñi la bëgg ak ci la bañ te réseaux sociaux moo nekk loo xam ne boo ci nekkee da ngay ubbi sa xol bi sinon rek da ngay sonn surtout ak commentaire négative yi. noonu lañ koy dundee commentaire négatif yi nag euh, ni ñu koy dundee ñu koy dundee lu métti. Mhm. parce que neexul tamit nga dugal sa video ñu la ciy xas wala di la ci wax dara. si mhm. voilà te nit koo xam ne ne que xamoo ko. Mhm. mosoo kaa gis. mosoo kaa teg bët lépp. nga koy waxal lu bon di ko juger lu bon. man ah man neexuma. mais je préfère que da ngay muñ rek. bàyyi noonu mu sedd parce que te xam ne ne yow yaa ko bëgg. te tamit yow yow li ñu ci am ñoom amuñu ko ci. Mhm. après ci préfères que yow da ngay def sa liggéey rek. boole ko booy boole ko patak organisé <laughs> noonu la léegi la mooy inconvénient parce que wax nga ne di nga si gis xameel mës naa invité fen nit ma ne ko yéen. da mhm. ngeen di nekk di tiktok rek di. waaw loolu moom dëgg la TikTok fayul Sénégal mais ñun euh, genre ñu ngi koy kar ci publicité yi mhm. parce que su nekkul publicité yi moom mën naa ne que TikTok bi dañ yéey TikTok rek te duñ ci am dara Mm-hmm. mais publicité yi xam nga dinañ la woo après fay la sa xaalis après mm-hmm. yow ni nga xam ne ne lii am na njëriñ. Mm-hmm. comprendre nga ci benn côté voilà. ci connaissance bi quoi lay fay voilà ok bi c'est quoi lan nga mës a dund lu la metti loo xam ne nii. metti na la daal téye nga ko sa xol si si si si si vidéo yi wala peut-être luñ la def lu la metti si biir réseaux sociaux yi ak axanke amoon naa lu ma metti trop ci réseau yi euh, dafa amoon benn foo compte bu ma ubbi loon benn foo compte la. si voilà loolu ñëpp gisoon nañ ko. bul day jël say image yi ngay dem ak yow. di ko fa dugal voilà jël fi ngay riijee di dem. en plus su photo mu wàññi ma man xoolal ni ma toll. <laughs> mu gën la wàññi. mu gën maa wàññi. ah jël samay photo xale. yoo xam mm. ne dama ci. Mm. kooku moom ku la xam la woon bébé Binta. non parce que photo yu mu doon génnee si yow image yu doon génnee si yow c'est parce que topp na la. Mm-hmm. Ah, maanaam maanaam dala topp pas à pas. nit yi mm-hmm. comprendre duñu woon c'est pour c'était quoi le but moom ah, moom nee na moom woon sax du ma toog ba wax ci. Mm-hmm. mais dinaa ko wax tey. parce que saa buñ ma euh, saa su may def ay interview dañ ma koy posé mais tey dama koy wax. nee na c'était benn copain wam moom ma daan posté yooyu noonu léegi affaire bi da ko daan métti jigéen la. Eh. xale bu ndaw la nekkul sax Sénégal. voilà ah nekk sax Sénégal eh, mais elle est bien informée de voilà léegi nag daan jox photo yi léegi moom nee na photo yi moom daf ma yàgg suivre hmm, comprendre nga xam nga genre avant ngay siiw da daan dugal lay neex mais xam nga da nga koy supprimer voilà bàyyi yu bees léegi nag après nag nee na yooyu rek la daa mën a jël pour genre mettit loo ma yooyu hmm. noonu mais man ba xam nga man awma problème si naa ko ci xol bu sedd guy mhm. parce que sama petite sœur la Mm. amul benn problème erreur la woon rek. Mm. mooy loolu xam naa daa nëbaate rek. dafa nëbaate dafa affaire jalousie moo ko jàppoon loolu la <laughs> léegi nag bébé Binta est-ce que tu visage de te marier am nga petit copain wala wala wala koo xam ne nii tey fiancé nga wala mu ngi lay labat est-ce que tu t'envisages de te marier bientôt wala yow bokkoo si yooyu noonu da nga bëgg nekk femme battante ba si kanam. Mm. li nga mujjee wax. femme battante waaw buggagoo sëy léegi du ma xaar ba ci kanam ak kanam ak kanam xale laa. waa <laughs> gaa demagul fenn de. Ah. Ah. xale laa nag ku ma gis foog ne mag laa xale laa xale bu ndaw laa. Ah. yaa ma gën a xaw mais tey jii soo gisoon borom eh. alal borom daraja ñëw xëpp la ay millions ne la bébé Binta dama la bëgg a takk. Hmm. nan ngay def yóbbu la euh, defal la maanaam mariage bu ñëpp di coow comme mariage yu Marie Louise bi ak euh, Pape Abdou. si xaw ma. ñu defal la mariage bu toj nga dem lune de miel Dubaï ñu xëppal la compte bancaire bu fees dell xaalis di nga sëy wala doo sëy. ah duma sëy. kon yow sëy wax alal daal suñu. yaa ko laal ah. man damay sëy ngir yàlla rek tax. Mhm. voilà bëgg ko mu bëgg ko ngir yàlla rek tax. Mm. alal du dara alal day jeex. kon looy looy wax xale jigéen yi nga xam dañuy sëy par intérêt. ñu bàyyi di toppee seen jëkkër yi par intérêt. Mm. waaw parce que xaalis day jeex xaalis moom yàgg yàgg day jeex. xaalis du dara dafa able sax mayewul. waaw kay kon mu ngi noonu rek. Mhm. kon daal loolu mooy loolu mooy sa loolu mooy mm. wax xale jigéen euh, léegi ba Binta yow. yaw es mhm. un cœur dafa am ku fi nekk. yow da ngaa ubbi buntu yi gars yi gisagoo ku baax wala am nga ku fi nekk ku wóor. Euh, pour l'instant nii. waaw mm. ah, am na ku fi nekk de. ah am na ku fi nekk. Eh, am na ku ah am na ko fi nekk. pourquoi pour l'instant. ah xaw ma mais may e ñaan yàlla nag mu nekk sama jëkkër mais am na ku fi nekk. am na ko fi nekk. Mhm. kon gars yi da leen dàq wala. non dàqu ma Adja bu ma jaxasee. jaxasewu ma la am na ku fi ne tey dangay ñaan yàlla mu doon sa borom ka kon ça veut ñi nga xam ne dañu doon ñëw pour postuler Bébé Binta nee na ngeen téye seen candidature wala waxoo lool. Adja <laughs> waa am na ku fi nekk moom. am na ku fi nekk. te foofu nga yem. waaw foofu laa yem. ah léegi kan la kan la. ku siiw la. ku bokk ak yow métier la. wala ku neutre la. Hmm. waaw ku mën naa nekk eh, siiw la ah. Hmm. Fallou. fee des ah, vidéos kaay. kaay nee na yéen bokk peñe eh. du ah man de waxuma Fallou la waxuma kii la waxuma kaa ah. yaa tudd tur Adja. Adja yaa tudd tudd Adja bu ma jaxase sénégalais nopp nga ko nopp nga ko. kan nopp. ah Fallou sama frère la. non non waxuma waxu Fallou léegi ki fi nekk nopp nga ko waaw wala déet. ah Adja ay Adja. ah mais dañuy waxtaan internet <laughs> yi a nga ko wala noppoo ko. Hmm. Ah, waaw. bi sedd na tàggatoo ko nga may ko message d'amour. may ka message. Adja Adja woon na ma war a si yooyu. de may ko may ko bébé wala xabibi wala may suga daddy. eh waaw en parlant de suga daddy suga daddy la wala wala sa sa sa morom la. Mm, Adja xam nga sax. moom daal ba nii nii bébé Binta naroo ñu wax. mariage bi léegi mu am xaar ko. non mënoo ma wax loolu contredire nga sa bopp parce que yaa ni damay ñafe ba si kanam femme battante la. waaw li xam ñuy def léegi après dina la ko wax. waaw léegi nee ko bébé je t'aime wax. ah <laughs> léegi wax ko loolu Adja waaw ne ko bébé yaa metti taan xam nga ma xam naa la I love you too Adja yi waxal waxal lak waxal lak Adja garaw Adja après naa ko wax wala après moo woo sa kanam wax ko ko ah. moo gën noonu nga xëy jàppoo daal <laughs> waa d' donc euh, c' bébé Binta hmm, si si suñu invité tey si biir fan adoo troisième épisode donc euh, dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu joxe dig daje beneen yoon bébé Binta lan ngay tëjee la mooy sa mot de la fin. voilà bon maa ngi nuyu ñëpp. aussi di nuyu sama yaay ak sama papa hmm. ah di leen def un gros bisou di nuyu suñu waa kër yëpp di nuyu sama fansi di nuyu ñi ma bëgg mhm. voilà yow tamit di la remercier en même temps. remercier aussi si accepté bi nga accepté ñëw tey jii suñu plateau. merci beaucoup merci beaucoup à la prochaine. donc voilà c' bébé Binta xam nga euh, tey jii jàngi ngeen lu bëri si moom nii nag lañ koy fas yéene di wéyalee saa su ne si biir Fun Ado di la indil comme nu ma ko doon waxee xale yi nga xamante ni nii référence lañ si société yi defuñu lu bon waxuñu lu bon te kenn mësu leen dégg c' est lu ñàkk fayda Fun Ado lay fii si biir Songuanté TV. à yaa ngi ci biir Songuanté TV bu leen fàtte di aimer abonné ba noppi di activer cloche de notification bi dara dootu la ump ci réew mi ak ci bitim réew ak la télé du peuple Songuanté TV. Aquaterra ndox mi wóor te leer KP transfert d'argent bi gën a wóor.